layla dooma ma leen di nuyu yéen ñëpp ci turu président de la république Macky Sall di sant di leen dinu di nuyu Serigne Xabban mi fi teewal njaboot Serigne Touba yëpp di nuyu jëwrin man nag day sama mag di sama xarit di sax sama nijaay loolu moo gën doon ndax xameek léegi yàgg na mën naa wax ni dama xàmmeliku rek xam ko bi ñu yàlla boole yàgg na dinaa ñëwaat léegi ci histoire u jumaa ji wane ni taxawaay bi mu ci am sëriñ mu Muntaxa dénk ko ko fi ñu ci toll tey dëgg-dëgg man de bokk naa ci ñi mu bettu ma leen di jottali nuyoowu président Macky Sall maag délégation bi mu leen di ziyaare di leen baal àq di leen baalu àq di ziyaare sëriñ bi sëñ Muntaxa di ñaan sëriñ Muntaxa mu ñaanal ko ñaanal réew mi ñëwoon nañ fi daaw fekk liggéey bi desoon tuuti yàlla dimbali ñu liggéey bi noppi ci weer yi passé yàlla wàcce fi xéewal yu rëy fii ci barab bi ñu ne Sénégal yëpp daje fi xalifa bi ñëw fi ànd ak njaboot ji yëpp président ñëw fi ñu gis fi loo xam ni lu rafet la ci Sénégal mooy ñëpp ànd juboo doon benn moo tax bi ñuy ñëw président ne ñu bu ngeen demee ba ci barab ba santal leen ma sëriñ bi waaye ngeen santal ma taalibe yi ndax bu ñu fa mënee ñëw nekk fa lépp doon jàmm taalibe yi ñoom ñoo ko doxalee noonu kon président leen di sant yéen ñëpp di ñaan sëriñ bi fi àdduna toll fa tey senegal yitte woon a jàmm ndax li ñu am na lu ngeen fay gis am na lu ngeen fay dégg waaye ñaan nit ñu fi baax ñi fi nekk ñaan yi nga xam ni Serigne Touba def na ko fii ci biir senegal def ko ci biir Afrique defal ko xeet bi yépp am nañu yaakaar ni yoon wi ñu teg buñ ko wàcculee Sénégal du tàggoog jàmm mukk président mi ngi ñaan Sëriñ Tuuba sëñ Muntaxa mu ñaanal Sénégal yëpp jàmm ñaanal Sénégal yëpp juboo ñaanal Sénégal yëpp xéewal ñaanal Sénégal la nga xam ni moom bëgg na ko liggéeyal Sénégal yàlla may ko mu mottaliku waaye ñun dañuy ñaan yéene bi mu am ci Sénégal yàlla may ko lu ëpp jortam moo tax bi may ñëw mi ne nañu ànd ak Alioune Ndoye di ministre boo xam ni tey la njëkk a génn bi ñu ko tabee ministre ak léegi yittewoo na ngeen xam ko ba ndax xamoon ngeen ko sax ndax mooy meeru plateau ngeen ñaanal ko ndax lañ ko dénk yàlla defal ko ci ndam ñu ànd ak gouverneur bu ndakaaru ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey ci barab bi ànd ak ay député ak i directeur ci chef de service mais histoire jàkk ji histoire bu yéeme la

du ci tabax jàkk ji waaye suuf si nga xam ne dafa nekkoon fii képp ku juddoo Ndakaaru màgg ci ñaar tali gis ni li wër suuf si yëpp tabax nañ ko li wër suuf si yëpp jënd nañ ko yàlla ci mbaaxam dencal suuf si Serigne Touba ba mbàkk yi mi nga xam ne dafa màggee fii ci ñaari tali màggee fii ci Grand Dakar mën a dox loolu ci ndigalu sëriñ Baar ba yàlla def loolu sotti juróom-ñaari at li nga xam ni taxaw na tey fii muy doo xam ni tiitaru képp kuy doom kuy jullit neew ma koo xam ni Sénégal nga def waaye képp kuy jullit wala képp sax ku bëgg lu baax boo gisee liggéey bi ñu def fii ak li nekk ci biir war nga cee kontam mais ku xam fi mbàkk yu joge xam ni war am lu ëpp loolu ci yoonu Serigne Touba kon mbàkk yu gàcce ngaalam président dang ngi leen di sant bu baax a baax mi ngi leen di gërëm bu baax a baax mi ngi sàkku ñaan ci guddi gi di sàkku ñaan ci njabootu sëñ Touba ndax lépp lu jóge ci sëñ Touba du yaakaar buñ ci am nañ ci firnde yu leer lépp loo xam ni dafa génn ci Sëriñ Tuuba bu dogoo ci lenn amuñu sikki sàkk ni yow loolu muy dogu yàlla dana ko defal la mu bëgg kon yàlla nañu yàlla boole barke guddi gi yëpp taas ko ci biir senegal defal njabootu Sëriñ Tuuba yëpp jàmm bàyyi fi Sëriñ Muntaxa ba ci kanam a kanam yàlla na fi mu taxa yàgg lool te wér la nga xam ni yéene na ko Sénégal la nga xam ni mu ngi koy liggéeyal Sénégal la nga xam ni mu ngi koy doxal Sénégal yàlla na ko yàlla may mu mottali ko mook njabootam yëpp moo xam ay rakkab lañu moo xam képp ku wékku ci mook maanaam jullit yépp di ko ñaanal taalibe murit yépp di leen wax jërëjëf di leen sant di leen jéggalu di len jottali njéggalu président Macky Sall di len jottali sante président Macky Sall di len jéggalu di la laaj wax aussi talana na ay loxom pour que Sénégal yëpp and jàppale ko ci li nga xamni ne nako na ko réew mi yàlla may ko mu motali ko ci jamm ak salam ma di sante di leen gërëm wasalaam jërëjëf monsieur le ministre kaddu yi lepp rafet na yalla na yàlla fay yaa ma gën xam man xawma ci kaw lañ juggé man dama jéggi saay rek gis leen ba paré fo tourné Dakar instant ngay gis. mais lolo ëpp na Dakar instant ci kaw ca kanam rek. wa ah Dakar instant dal gis na sen caméra bi ni ma mi ni xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xol bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tour rek day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm Inshallah. allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant l'année leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen Dakar instant. sa le rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci Dakar instant. Wow, Dakar instant nag mom, ñoom danoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma